الحمد لله الذي أغناني وأعزني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

asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. بنعمة ربك بمجنون maa ngi lay fay. daa am question ma laaj. ngi lay déglu ban yan mooy yi nga xam ni koomul njàpp waru ko def. ah jàpp nañ ci trois ban kaamil bu mat quoi kaamil bu mat sëkk. waroo koo laata amoo njàpp waroo julli te amoo njàpp te amoo benn gànt waroo wër kaaba bi aussi te amoo jàpp ñett yooyu xam naa ko si waaw. ñett maa ngi lay jaajëfal. maa bu baax maa ngi lay fay bu baax. damaa amoon benn laaj. waaw bisimilah yow laay déglu. yan mooy ñu tere ko mul njàpp mu def ko. waa xam naa si julli ak ak alxuraan ak dugg si jàkka waaw loolu daal xam naa ko si. ñett yooyu. waaw ñett yooyu laa si xam man. maa ngi lay jaajëfal. waaw maa ngi lay fay ku baax maa ngi lay nuyu. ñu ngi lay delloo ziar. damaa amoon benn laaj. mooy ban. la ñu tere koo jàpp mu def ko yi nga xam ne boo mun jàpp waru ko def. woo mun jàpp de woo woo julli ci kaw boo xoolee xoola xool ba ba nga xam ne amoo amoo ndox nag mën ngaa tiim nga jàpp mais boo xam ne mën ngaa am ndox da ngaa dem jàpp doo ko julli. waaw boo amuñ jàppit boo laal kaamil. kaamil ka kaamil alxuraan waaw boo amuñ jàpp boo ko laal. maa ngi lay jaajëfal. waaw jaajëf jaajëf yal na yàlla doole jàmm jaajëf. aoudu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafi al anbiyaai wal mursalin sayidina wa maulana wa nabiyina muhammadin al amin wa ala alihi wa ashaabihi dhawi ridwani wa tamkin bokki téléspectateur Ali Imran TV ñi ngi leen di nuyu di leen nuyu nuyób jullit di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu di nuyu bokk yi ci biir réew di nuyu bokk yi ci bitim réew di nuyu bokk yi nga xam ni ñooy ànd ak ñun ci seen jataay bii di xam say masala di jaajëfal sëriñ Mor Mbaye ci laaj boo am solo bi nga xam ni indil nañu ko tey ci xam say masala mooy yan la ñu tere ko amulum njàpp ku amulum njàpp dafa am yuñ ko tere mu def ko ci jamono bi nga xam ni dafa ñàkk am njàpp jamono ba nga xam ni moom amulum njàpp wala dafa tojal euh, te fekk amul ngantul tiim nag te amul ngantul tiim loolu mbokk yi lu mat a bàyyi xel la euh, buñ delloo ci euh, jawharun nafis Euh, sëriñ bi dafay wax ni laysa li gayri mutawaddiin salaat wala tawaafu bayti man man man yuwaali silaat kamassi mushafin xul aw jildin la bil uudi aw bi sawbi aw aw aw naxwin la lakin masal juzi man taallama fiihi faqat juwida inda al ulama wallaw xukal kitaabi fi taxrimi li gayri dil wudui yaa xamimi lakin yajuusu lilladi yuallamu massu kada musaxixun muallimu wa massu binnajaasati sibyaani ka massil kibaari fi lisyaani lakinama al ismu ala almunaawili fala takun munaawilan yaa saaili wa man bila tuhyin yusalli abada bila daruratin fa du fisqin bada laysa lahu bi dalika tayammum yowma alqiyamati siwa jahannam aadana allahu min alxusraani wa sara iblisa mada al azmaani mbokk yi dañuy wax ni Cheikhul Xadim day wax ni képp koo xam ni amoo am njàpp waroo julli maanaam julli di jot rek ñu soññee fekk amoom njàpp rek nga dem kàbbar loolu mbokk yi ab jullit waru ko def ab jullit daal dafay dem jàppi wa illaa mu am ngàntul njàpp mu dem tiim ndax ndox laab na suufit laab na waaye nag suuf balaa laab dafay fekk yow ci sa bopp nga am ngàntul ndox waaye bu fekkee nag amoo ngàntul ndox déedéet suuf laabul ci yow kenn digalul la nga tiim kon ko amul am njàpp warta julli kon nit balaa julli dafa war a amum njàpp bu fekkee dafa am ngàntul njàpp nag mu dem tiim ku amulum jàppit kadalika du def tawaaf moo xam tawaaful ifaada moo xam tawaaful widaa la moo xam tawaaful quduum la kon ku amulum jàppit wërta def li ñuy tuddee tawaaf ku amulum jàppit wërta laal alquran wërta laal alquran laal mbar mañ ko def mooy der ba der bañ ko def wala saak bañ ko def waru ko laal benn waru ko laal ak loxo waaye it waru koo laale ak bant waru koo laale it ak yére ci ki nga xam ni dafa amulum njàpp waaye nag mu mel ni borom dañ cee indi leeral gu am solo euh, dañu wax ni laal xaaj ba ci kuy jàng laal xaaj ba ci kiy jàngale dagan na maanaa man damay jàngi alxuraan jukki bi may yor daggan na jamono bi ma amulum njàpp ma laal ko ki may jàngalit dagan na mu laal jukki ba maanaam ki may jàngal alxuraan na mu laal xaaj ba xaaj ba ma yor wala jukki ba ma yor mu di ma ci jàngal moom bu amulum njàppit dagan na mu laal ko loolu may nañ ko ko waaye man mii jàngit dagan na ma laal xaaj ba waaye kan lañ tere mu laal xaaj bi mooy ki nga xam ne day jël xaaj bi nag di ci waqaf rek moom tere nañ ko mu laal xaaj boobu te amulum kon loolu mat leeral la maa ki nga xam ni dafa am doogub alxuraanam di ca waqaf di ko jàng rek di ca jaamu yàlla kooku moom bu amulum njàpp sañul laal xaaj ba waaye nga xam nag moom dafa toll ci dem di jàngi alxuraan ngir mokkal ko wala mu di ko jàng ngir xam ko kooku may nañ ko mu laal xaaj bi waaye ka koy jàngalit may nañ ko mu laal mu laal xaaj boobu mbokk yi loolu am solo la waaye nag xaaj ba lañ leen may waaye may ñu leen nag ñu laal kaamil bu mat bi loolu moom duñ leen ko may moo xam kay jàngale la moo xam kay jàng la waaye seeni jukki ki jàng sañ na koo laal te yorul am njàpp waaye kiy jàngale it sañ na koo laal te yorul am njàpp kon loolu mbokk yi loo am solo la euh, laal alliwa nag juñ bind alxuraan mook laal jëmmi kaamil ñooyam ca araamal ga ci ki nga xay ne nag jàngul jàngalewul moom la moom la wax ne wala kitaabi fi taxrimi li gayri dil wudu ya xamimi mbokk yi muy lu am solo nga xam ne téere bi Cheikhul Xadim daf ko lax laxdari tudde ko jawharu nafis laxdari di téere bu Abdourahman al Axdari boobu di téere bu am solo waaye sëñ bi da koy way ba pare di ko saraxa waaw da koy way waaye yamatul ci way wi mu di ko saraa kon day mel ni euh, alliwa juñ bind mooy alliwa ji dañ caa bind wala ab kaye boo xam ne dañ caa bind alxuraan wala téere boo xam ne dañ caa bind alxuraan lépp di alxuraan su boobaa mbokk yi loolu ñu bàyyi xel ni niñ la teree alliwe ji niñ la teree kaamil bi noonu lañ la teree alliwe jooju nga laal ko niñ la teree jukki bi te jàngoo jàngale woo noonu la teree nga laal ko mu des nag a xam-xam yi nag nee nañ bu dee téere bi nga xam ne téere xam la fiq da caane wala xadis la wala siira lay jàngale mu am ay aaya yu ca ne wala mu am ay aaya alxuraan yoo xam ne ay istidlaal la ay tegtal la wala ay saxal la wala ya ca aju nag su boobaa nag ñu bàyyi xel ni loolu moom mayeef na ko maanaam loolu moom maye nañ ko téere bi nga xam ne téere fiq la yenn saa yi muy leeral ba indi am masala wala téere bi nga xam ne téere hadis la muy leeral ba indi am masala wala téere boo xam ne dafay wax ci bii a wala leneen mu indi ab aaya alxuraan loolu moom su boobaa téerewuñ la ko waaye bi nag bu dee àlli wa jaxane alxuraan lañ ci bind wala téere boo xam ne alxuraan lañ ci bind nag kooku moom nee nañ niñ la teree jëmmi alxuraan ji noonu lañ la tere nga laal alliw ji loolu ni da ngaa da jàpp moo tax nag mu ni kon dagan na nag kii jàngale moom xaaj ba ki nga xam ni donga bi daa ñëw di tari ah donga bi daa ñëw di tari ngir mu di ko toppal kooku it may nañ ko loola maanaam nit daa ñëw mokkal alxuraan jël xaaj ba mu war a jukkee ba mu war a jàng jox la ko nga téyal ko ko jamono boobu yow yow mi koy wérlul yow mi koy wéralal njàngam moom loolu may nañ la ko mooy masukada mu saxixun muallimu mooy kiy toppal donga bi euh, laalu xale mbokk yi moo moo ak laalu mag ñooyam maanaam ca bàkkaar ba loolu la ba nga wax wa massu bin najasati sibyaani ka massatil kibaari fil isyaani waaye nag dañoo wax ni bàkkaar ba nag dañ koy jox mag ma ko wax ni ko jotli ma ko maanaam xale bi nga xaye ni tollagul ci ñu war ko bindal bàkkaar waxtu ko mag mi ne demal nga indil ma kaamil bee xale bi dem yenu kaamil ba indil ko subaa dañuy wax ni bàkkaarub xale boobu dañ koy jël bindal ko maanaam mag moomu loolu ma ta bàyyi xel la kon Euh, lu mat a bàyyi xel la lu am solo la bi des nag sëñ Tuubaa ni képp koo xam ni yaa ngi julli te jàpp te amoo ngaan mu ni koo ab saay-saay la wa man bila tuhrin yusalli abada bilaa daruratin fa du fitqin bada koo xam ni daal dangaa dem moo xam cig wéet la moo xam dangaa yàkkamti moo xam mbooloo mi dañuy julli rek nga dem yàkkamti bañ ñu raw la wala moo xam sax dangaa bañ a jàpp ndax ab seddaaya tax wala moo xam sax dangaa amul am ndox nga war a tiim tiimoo nga dem rek dem dem dem julli noonu rek te amoo am jàpp sëñ Tuubaa ne bu ñuy wër ab saay-saay kooku mooy saay-saay piir maanaam ab kàccoor piir a ngi noonu fa do fisqin bada maanaam bu ñuy wax kàccoor bu feeñ dëgg ci lislaam mooy koo xam ne daa dem di julli jiita te amulum jàpp da koo soob rek wala mu tàyyee la wutim ndox rek wala nit ñi di julli mu ni naa kàbbar jullee ndoog ñoom rek wa illaa mu yàkkamti ñëw ni naa julli ba pare rek nangam ak nangam su boobaa loolu mbokk lu mat a xel la moo tax mu même bu tiimee laysa lahu bi dalika tayamum yowma alqiyamati siwa jahannama maanaam bu tiimee tiimam googu du ko yóbbu fadul jahannama am nga jàpp am nga ndox nga lànk bañ a jàpp dem di tiimi sëñ Tuubaa nee na sa googu day nala leer ni noonu nga koy masaa ci suuf bu ëllëgee da nga ko masaa jahannama da nga dugg jahannama di ko masaa sawara woowu sa googu mooy ki nga xam ne di dafa julli te amulum dafa dafa julli te amulum jàpp ba pare dem di tiimi maanaam moom am na am ndox waaye moo bañ a jàpp dem di tiimi su boobaa tiim li muy baax baax Cheikhul Xadim nee na tiimam googu du ko yóbbu fudul jahannama moo tax bi mu tuddee jahannama mu ñaan ni aadana allahu min alxusraani yal na nu yàlla musal ci ak pertaange wa sarra iblisa madal asmaani yal na nu yàlla musal ci ayu iblis diiru jamono ndax xam na ni loolu pertaange la maanaam julli te jàpp woo moom moo sàqami ta sexoo yam doo mus a regg doo mus a suur bi ci desin mu ni yàlla yàlla musal ci pexem iblis mooy xam na ni saa yu ne iblis mooy dugal ci nit ki loolu mooy waa ji dafiy nekk naan dañuy nekk ci xew wi wala ñu nekk ci jàng yi mu wër-wër ndox amul gaa yi kàbbar rek mu ne ah naa dem dugg ci sàppe si rek daal di dem julli naa dem rek daal di julli naa dem rek daal di dem julli te fekk booba maanaam moom jàppuwul wa illaa sax ndox amul suuf a ngi fii xëy na yére yum sol wala kanamam gu mu diw wala toilette bu mu def mu ne ah naa dem kàbbar rek julli bañ a bañ a tiim wala naa dem rek kàbbar julli su boobaa kooku maanaam ab saay-saay la waaye it ak koo xam ne nag ndox daa am sax mu ne ah su ma fi nekkee di jàpp daal sama yére yii ma sol wala complet sama complète bi day tooy wala sama costume bi nu ma koy summee wala sama dàll yi nangam ak nangam dem tiimi su boobaa tiimam googu du ko jariñ lu dul euh, fële ca jahannama kon mbokk yi loolu mooy yi nga xam ni dañ ko tere ku amulum njàpp mu di ko def kon su ko defee ñun ñëpp ñu bàyyi ko xel bu baax di jaajëfal mbokki téléspectateur Ali Imran TV di sant ñi ci biir réew di sant ñi ci bitim réew di ànd ak ñun jataay bi kon ñu ngi leen di jox dig daje incha allahu rabbi ci beneen jataay xam say masala